alors bokk na ci bës yi ñuy fàttaliku 29 euh, octobre 1992 euh, bés boobu la ñu barage euh, barrage hydroélectrique yu Diama ci Sénégal ak Manantali ñi nga xam ne ñoo di chef d'État yi bokk ci OMVS di organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ñoom ñoo def lu ni mel mu di ab mbootaay bu ñu taxawal ci weeru mars atum 1972 ca Nouakchott ñetti réew yooyu ñoo ko seq loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen xew-xew 29 octobre wute ñu dellu si. 2022 brigade des douanes bu Kidira nag dafa saisir lu toll ci 300 kilogrammes de cocaïne ba ñu ko ma yegg na 24 milliards ci suñuy koppar cocaïne bi nag ñu ngi ko fekkoon ci benn camion frigorifique bu jugee woon réewu Mali saisie bii nag mooy saisie bi gën a mag ci cocaïne bu douane sénégalaise mësa def. 29 octobre 1965 si la ñu enlevé Mehdi Ben Barka mi nekkoon njiitu opposition marocaine mbir mi nag ma nga xewee woon Paris bés boobu Ben Barka nag dafa demoon ci benn rendez-vous ba mu amoon bés boobu nag Ben Barka dafa demoon ci benn rendez-vous ba mu amoon ca brasserie Lipp si loolu nag opposant bu roi Hassan II bii nag kenn dootu ko déggati te kenn dootu ko gisati ginnaaw ba muy bëgg mat 60 ans ba tey jii enquête judiciaire ba ñu ubbi woon jeexagul tamit implication wu pouvoir politique marocain yeeg français yi ak sax service secret ba tey tey amuñu lu ci leer. 29 octobre 1983 diwaanu Pikine la ñu def commune réforme territoriale yi amoon atu 1983 moo taxoon nag ñu xaaj presqu'île du Cap-Vert def ko trois grandes communes muy Dakar Rufisque ak pikin pikin nag ñu ngi ko sosoon atu 1952 ndax askan yeenu jële woon Colobane Médina Nimzat Wakhinane atu 1986 nag si la nekk ville bu ànd ak ay communes d'arrondissement 29 octobre 2012 moo nekkoon remaniement bu njëkk ci nguuru Macky Sall ginnaaw ba benn ay bës jàllee fekkoon nag cantakun yi doon manifester ci tëjum kaso bu Cheikh Béthio Thioune Abdoul mbay sax nag moo nekkaat premier ministre waaye juróom-ñaari ministre dinañu génn ci gouvernement bi muy mbay Ndiaye mi yoroon intérieur Alioune Badara Cissé affaires étrangères Mor Ngom transport Ibrahima Sall éducation Matassi Diallo commerce Ali Koto Ndiaye jeunesse ak Abdoulo mi yoroon communication ñii di général Pathé Seck Mankeur Ndiaye Abdou Aziz Mbaye Guèye Latif Coulibaly Mbaning Ndiaye ñoom nag dinañ dugg ci gouvernement bu bees bi xam ngeen ne Macky Sall nag moo fi diggoon askan wi vingt cinq ministres waaye dina mujje yegg ba trente. 29 octobre 2022 bu waxante gu metti nag moo amoon Itaewon di ab quartier bu nekk Séoul ma nga xewee woon nag ci festival bu Halloween 159 personnes nag ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan 133 jëlee woon ci ay gaañu gaañu buuxante ba nag ma nga amee woon ci wetu hôtel Hamilton bu Itaewon ci benn koñ bu sew ndax nag ful ba dañoo dankaloo woon seetaani benn célébrité bu ñëwoon ci benn bar bu nekk ci quartier bi ginnaaw naufrage bu ferry Séoul atum 2014 buuxante boobu nag moo ëpp lu mu rey si nit ca Corée du Sud. ñu taxaw 29 octobre 1992 OMVS nag dafa daloo barrage bu Jama nekk Sénégal ak Manantali bu Mali ci teewaayu njiitu réew yi bokk ci kuréel bi ñu ngi kasos 11 mars atum 1972 ca Nouakchott OMVS nag Mali Mauritanie ak Sénégal ñoo ko ëmb impliqué woon na nag bu baax ci crue bu fleuve Sénégal bi ak Falémé bi ñuy laaj rek ban taxawaay la OMVS am ci inondation yi am ci gox yi nekk ci bët gànnaaru réew mi ak penku mi. empêché géej gi muy dugg ci biir cours d'eau bi barrage Manantang nag li ko taxoon a jóg moom mooy mu mën a gérer crues nga xamante ne moom mooy am ci fleuve Sénégal parce que barrage Manantang dañ ko benn pàcc bu am solo ci fleuve Sénégal bu ñuy wax Baffin Baffin boo jëlee début cours d'eau fleuve Sénégal genn wàll gi Baffin moom moo koy joxe ndax euh, kon da nga fiy déggee du Baffin dong dong du cours d'eau Sénégal dafa am yeneen cours d'eau yoo xamante ne mooy ñoom ñoo ñëw di fekkante ak bassin bi bu mel ni a gën a am solo moom mooy bassin bassin boobu nga xamante ne mooy bëri mën ñaari junni université at mi kon balaa ci mën a tey naka jekk nekk defoon ngir mën a gérer ku fleuve ku fleuve Sénégal a yéeg gi ndox mi di yéeg ñu mën ko ñu nga gérer ba nga xamante ne dañuy téye kooku ndox mi ba nga xamante ko soxlaa Bakel du bàyyi du bàyyi ndox mu dem Bakel bu ñu ko soxlawul Bakel mu téye ci lu ñu mën téye ñu mën ko téye foofu noonu di koy defal jëfandikoo si yeneen li ñuy wax lakk réservoir kon nga gis ne mbarage madame tey sax li ñu ko defee mu loo xamante ne ne moom mooy inondation yi maanaam dafay teye ay am si kanamam nga xam ne mooy mooy jëm Bakel ba jëm ba Podor ba Matam kon lii si déggee da ngay xam ne lâché yi nga xamante ni OMDS daf ko lâché nekkul ne inondation yi nga xam ne moom moo am Bakel inondation yi leneen la maanaam dafa liggéey ak li wax mooy changement climatique ndax dañ ji li ñu def si am ndox dafa bari ba nga xamante ne wax naa ne kuugóobu ba Baffinè rek moom moo ñëw Bakel am na Falémé euh, am na Bakoy bi nga xamante ne moom moo ñëw région si si si Baffinè am na beneen bi nga commune bi ay bassin restant nga xam ñoom dañuy jot ndox ndox moo xamante ne ba barrage Manantang bi ko mën a téye barrage Manantang si si Baffinè la mën a téye kon ndox mi nekk foofu rek la mën a téye donc ndox bi nga xam ne moom la ñu jot tamit si kanamu barrage bi maanaam Guinée bi Guinée Conakry maanaam si montagne de Diaoulé ren tamit dafa bëri peine dafay parce que depuis les années soixante dix on était dans la sécheresse ouvrage yi ñëpp dañ def ci pendant cette période de sécheresse alors que depuis on commence dañu commencé fi nekk di génn ndànk ndànk ci sécheresse boobu je rappelle que l'année deux mille dix précipitations yi ñu dans le bassin moo gën a bëri depuis 1958 gisuñu woon précipitation yu bëri noonu ci année 2010 kon li ñu siy déggee que ne période humide fu nekk nii moom si dañu leen dugg maanaam sécheresse bi jeex na période humide la ñu dugg période humide boobu nag fekkoon ñun suñu ouvrage yi ñu ko defoon si période sèche loolu moom moo tax fu nekk nii suñu ouvrage pour ñu mën a jànkuwanteeg ndox mu bëri nga xam ne changement climatique moo ko waral ñu am ay jafe-jafe moo tax branchement tamit au contraire dafa dimbali sax si inondation yi ndax bu ñu defee ay lâcher bu ñu lâcher am na lu ñu téye

comme dañuy ba euh, mbënd yi amee foofu ci euh, wax nañ ko sànq parti nord beek est réew mi euh, ba dex bi génn am na ñu bëri dañoo pointé woon du doigt lâché ñu ne bu manantal li ba OMVS sax wax ci ne naam sax loolu am na mais ce n'est pas le seul facteur dafa am facteur yu bëri xañ na moo tax ba cru yooyu noonu am ba mu jural loraange yu bëri askan wi. oui évidemment concomitance bi am ci diggante ñu ne lâcher d'eau mm. def nañu ko ndox mi dugg na ci teer yi moo tax xëy na raccourci boobu am mm. mais techniciens yi dañu ci wuute wuute bi mooy peut-être historique bi xëy na euh, li mu wax mun am na loo xam ne mun nañu ci jaaraat mm. ñu comprendre bu baax barrage yi naka la taxawee naka lay fonctionner barrage yu jama bi moom Sénégal la nekk mu ngi nekk soriwul Ndar 27 kilomètres mais bi li ko gën a tax a jóg mooy nekk barrage anti-sel hmm. parce que ndox géej bi moo doon dugg dans les terres moom loolu moo gën a nekk liggéeyam barrage Manantani bi nag hmm. moom moo gën a nekk barrage hydroélectrique bi nga xamante ni aussi li tax techniciens yi wuute ci ne maanaam dañ ciy def courant di ko séddale ci ñetti réew yi hmm. mais li tax ñu wuute ci ne du lâcher d'eau yi moo provoqué inondation yi donte facteur la ci mooy barrage bi danaka ci 40 pour cent ndox yi rek lay agir en fait. am capacité de stockage onze milliards de mètres cubes te te stockage pluriannuel sax en fait. mën na ko stocké pendant des années voilà donc moo tax aajowul ci parce que lâché nañu rek mu am mais dafa am facteur yoo xam ne moom la dajaloo waaleel. Mhm. cest à ndox mu bari taw. changement parce que mën nañ ko mhm. Bafing mooy fleuve bi nga xamante ne nii moom mooy daje ak Bakoy par exemple ñu ànd. Euh, il il se rencontre dans le Bafoullabé Bafoullabé am na xam naa ni Malick bu baat bi neexoon tey mu mu yëkkatil ñu Mali Sadio parce que Mali Sadio taarix la ci Bafoullabé boobu parce que. c'est l'histoire entre hippopotame ak un jeune fii hmm. une histoire d'amour entre <laughs> hippopotame ak une jeune fille mais ñoom ñaar ñëpp finalement leur destin est lié mais li ma bëgg wax foofu mooy onze milliards de mètres cubes yooyu hmm. mun nañ ko stocker pendant des années te bu ñu ko stocké hmm. la ñuy transformer électricité répartir ko ñetti pays Mali Mauritanie ak Sénégal maintenant ci 40 pour cent ndox yi nga xam ne moom la ñuy agir ci barrage bi justifié wul moom kese inondation yi dafa tombé surtout lii tax ñuy gën a wax mooy eau de yi nga xam ne mooy jóge Guinée parce que moom moo am forte pluviométrie boo xam ne impacte na zone bi yëpp mm, et ça je pense que évidemment techniciens yi dinañ ci gën a xalaataat mais mm. lâcher d'eau yi li tax mu am moo moo ëpp jàmm. Hmm. parce que lâcher yi su amul ba. varage bi wala barrage bi séddee. loolu musiba la te dina am impact bu mu am. non seulement ci électricité mais dina gën a peut-être indi indi. ay conséquences yu gën a garaaw yi c'est ça merci beaucoup merci Abdoulaye Cissé ñu jàll ci xibaar yi ñu tënk ko ak Chérif Dia.